أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجب له إلى يوم القيامة الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين نبي الرحمة alladi arsalahu llahu rahmatan lil aalamin sayyidina wa habibina wa mawlana muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim amma baadu ayuha almushahiduuna alkiram fi télévision sunu label tv nuxayikum bi taxiyati alislam taxiyatan mubarakatan min indillahi tayiba wa hiya assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki téléspectateurs yi nga xam ni yéen a janoog seen télévision bi di sunu label TV mboolem waaye ne ci gox yu fasantikoo yi moo xam ñi ci réew mi la moo xam ñi ci biti réew maa ngi dellusiwaat ci suba si àndaat ak yéen di leen nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di leen ko baal di ñaan sunu boroom yal na yàlla bokk nu nangul bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jagleel nuyoo mboolem fu waay ne ni ngeen ko miine seen émission jilsatu nabi delsiwaat na suba si maa ngi ñaan sama boroom mi am kenn lul jàmm yal na yàlla bokk ko defal démb bi ñuy tàqali ko maa waxoon ni taraangay balqiisa yaa nga jëm ca suleymaan mooy jóge na saba i ca jëm na Palestine ca suleymaan suleymaan nga Palestine fa la kampe hudu hudu foofu la naawe woon dem saba i moo tax bi mu ñëwee mënu ko andil naa la xabaar boo xam ni masoo koo xam man maa demoon saba i fekk fa jigéen joo xam ni lam fa moom cay taraanga kenn xamul mu toll nekkate jigéen jooju Balxiisa la waaye mbokk yi nañu déglu Balxiisa jigéen la borom xel la bul fàtte ne nag maa ngi jàngale li ñuy wax wàcc parce que critère bi ñu soxla critère bi ñuy wër mooy sunu boroom nee na ñi ma d'accord ni ay jaam lañu yoo xam ne lu ñu jaamu yàlla ma nangu ci suratu furqaan ca geen ga ibaadu rahmaan mooy ñi nga xam ni réew réyuñu euh, te Modou léeg-léeg nit ree ree wax sax ku ko jàngal <laughs> waa aman ah, maa gis ku toog ci tele di wax ni man suma ma mënee toog ci télé ma diw la te day kàcc man xam naa kan moo tax mu mën a toog télé di wax <laughs> man xam naa ko ah, nit ñi dañuy ree ree ba ree sax wax ku leen jàngal waaye may mbokk yi man xaw ma doomi aadama yi luy seen problème nit mën nga wàcc rek àdduna fii kenn mënu fii ree ba weesu doon nit waaw la waaja waxoon waxoon waaja ba mu ko fekkee muy jaay affaire di ngand ngand lu defee ni moo fi ne xam nga léeg-léeg nga gis koo xam ni gis nga yal na yàlla musul ñu ci nit ñi naan la yawa soo commencé am ay soppee ñu lay woo naan la affaire bi boo deful ndànk dañ lay dofloo te fekk nit nga woon wér nga mais da ngay mujj dof nga mujj sa xel changé nga soppeeku kenn du xam lu la soppi fekk nit ñi la nit ñi ñoo lay woo sa waaye léegi macha allah jàmbaar nga yow moom léegi da ngaa mën waxtaan na moom dañ lay dof loo de defal ndànk noo fay waxtaan ba waxtaan fi nit ñi waxtaanul <laughs> nit ñi waxtaanul nañ li lépp ñun ñëpp di wax fekkoon nañ nit ñi waxtaan ko bu yàgg fàttali rek la fa zakkir la jàppee ko noonu pour nga dal pour noppalu <laughs> rëy nag léeg-léeg nga dégg li may wax ñun ñii borom xam-xam yi dañuy ku koy waxtaane fekk moom moom la yore te yëg ko ñun ñii dañ koy yor te duñ ko yëg moo tax maa ngi ñaan ku te jàppal ni lii di waaraate zakkir la maanaam fàttalee la créé woo ko léegi nga dégg ko naan la sama concept maa ko créé waaye bàyyi ma nga naan ma xanaa du waaraate laaj masala nga tont wala du loolu wala du dangay jàng ab aaya expliqué ko dafay am concept bu fi kenn créé ci wàllu waaraate waaraate amul concept loo fi wax nit ñi waxoon nañ ko aaya alxuraan ngay jàngale firi ko mbaa ab hadis mbaa ab baytu alaaj ma mbaa bu sëñ Tuubaa am na ñu fi jaaroon bu yàgg def nañ koo pare mbokk yi nañu wàcc na ñëpp wàcc tàmbalee ko ci ñuy jàngale mu dugg ci biir ñëpp moo tax waaja loolu la waxoon waaja ba ko fekkee muy réy réylu mu ne ko xanaa xamoo ma mu ne ko akama laa xam mu ne ko xam naa la bu wér a wér a wér a wér amma araftani qaala araftuka xam naa la kay awaluka nutfatun qadratun wa axiruka jiifatun madiratun wa fi ma bayna dalika taxmilu gadrata <laughs> mu ne ko yow ma xam la yow mii yaafi fi tàmbalee woon laata ngaa ñëw nekk nit nekkoon man yu yow mii la xam naa la bu baax de yow man <laughs> xam te yow mii yaay ki nga xam ni boo demee ba dee midd ngay doon yow mii la xam naa la de <laughs> yaay ki doonoon man yu te yaay doon midd te ci diggante man yu midd yow danga fi yore sobe nga ne ma dem duus te ñëw yow yaay kan waa fii la ñëpp jaar waa ji lii mu wax kii fii la ñëpp di jaar kon nit na dal rek maza takabburu wa anta xaamilun ba noonu la ko Cheikh Xaaj Maalik waxee looy rëy rëylu lan la nit di ngand ngandlu moo tax may jàngale ci Suleymaan wàccam waaye Balqiis ak wàccam ay buur lañ de ñoo xam ni li ñu géré kenn masul géré lu tol noonu tur wi ñu am kenn masul am tur wu tol noonu mais mbokk yi xool leen taraanga dem na maa la joxoon rendez-vous bu demee ci Souleymane nañu xool nu ko Souleymane recevoir alxuraan ay wax falammaa jaa Souleymane xaala atumidunanii atumidunanii bi maalin fa maa aataaniya allaahu xayrun mimmaa aataakum bal antum bihi daa'iratikum tafraxuun balxiisa da doon wër ndax suleymaan am na yàlla wala amul yàlla mbokk yi ndekete kon lii ci la ñuy xam ko am yàlla ko amul yàlla mooy lan mooy koo mën a jënd amul yàlla loolu la jeex la képp ku ñu mën a jënd amul yàlla man nag nee naa ku seer sax mu tane waaye ku ñuy jëndee vint cinq mille wax naa ko démb kooku amul yàlla ah li tane woon sax xanaa nga xaw a seer tuuti mais ku ñu mën a jënd rek amoo yàlla yàlla génn ci yow ku am yàlla kenn du ko jënd soo jëloon àdduna li ci biiram teg ko ci kanamam day xool lan la yàlla bëgg ci loolu lay dox seetul li nga bëgg mu dox ci day seet li yàlla bëgg ñun nag tey ku ñu corrompre rek am na am na koo xam ne léegi am na ku muy waxal waaw ko kenn du ko laal léegi eh, nga dégg ma diw kenn du ko laal sama nit la du dara dalaa jënd dalaa fay dalaa fay am nga yeneen nit yoo xam ni maanaam dañoo joxewul xaalis moo tax ku laal soo yónneewul ci ñoom <laughs> loolu rek la kenn dalaa jënd dalaa jox xaalis moo tax kenn du ko laal mbokk yi du noonu wa sawwi ahlal ghina wal faqra fii ka waman ataa yadummu wa man xat kaana yurdika loolu la alxaaji Mansour papay sëriñ bay Si Mansour mii waxoon Seex alxaaji Abdul Aziz Si Dabbaax mu tedd moomu nga xam ni ñëpp nangu nañ ni ku mu gënul jikko gënoo ko la tax alaaji Abdu mel ni mu mel alxaaji Mansour da ko ne yemaleel ñi am ak ñi amul ñi lay jox di la baatare ak ñi nga xam ni bu ñu ñëwee mënuñu laa baatare yemale leen moo gën lu ko may rek di nga jéng ko yëg mbokk yi nit du nangu ñu koy jënd Souleymane taraanga ji ñëw na mu recevoir leen ñu jox ko taraanga yi woon ko mu ne ah yéen daal seen njiit gi dafa defe nii man dama soxla lii dafa defe nii man dama soxla lii ah moo tax mu may jéem a àndil alal naan damay jéem a jënd xaalis nee ko man soxlawuma lii li ma yàlla jox a ëpp lii li ma yàlla jox te mooy am yàlla looloo ëpp allahu akbar mu tax li ma yàlla jox bu Souleymane damay bañ ñu defee taraangala taraanga la déedéet yàlla jox boobu Souleymane di wax mooy li ko yàlla jox ci am yàlla wa ma aataani allahu xayrun mimma aataakum parce que mimma aataakum moo la koy wax mooy balxiisa am na taraanga balxiisa bu dee taraanga dong Souleymane ëppale wu ko armée bi mu yor kenn abu ko taraanga ji mu yor neexul a dab waaye Suleymaan gisul taraanga yàlla la gis moo mu ne ko li yàlla jox ëpp li mu la jox mbokk yi luñ ci jàng ñu to alxuraan wu mu doon daa war jàpp ne li ko yàlla jox ëpp li mu jox gaa yi billaay looloy dëgg nitu alxuraan wu mu doon na jàpp ne lima ma yàlla jox moo ëpp li mu jox gaa yi mbokk yi yii nit ñi yor fii lay yem ñun ñëpp ku ne li nga ci lay yem moo du oto bi ngay dawal ak jeesneer bi nga sol ak maanaam compte bank yeeg lépp fii lay yem moo mu tudd wërsëg <laughs> day wërsëg rek ñibbiwaat du dugg ci biir sëg bay dem ci bay dem ci bàmmeel wër sëg rek la ko wolof tuddee day wër sëg rek ñibbi du dugg mukk ci biir sëg waaye mbokk yi nit alquranul karimam bis bu ko sellalee mën na dem ko moom ba biir bàmmeel taxawu ko ba ñu demee ci kanamu boromam alquran taxaw pele del ko alquran la yonent bay wax de iqrawul quran fa innahu yati yowma alqiyamati shafian li ashaabi daw leen ngeen jàng alquran ñu ne tax mu ne billahi benn avocat moo am yowmal qiyaam boo xam ni ñeme naa taxaw ci kanamu borom bi de plaideel nit alquranul karim la mbokk yi ku am alquran yaa am li gën ci àdduna ak alaxira Suleymaan ne ko li ma yàlla joxe ëpp lii ngeen fi andi muy ay teraanga lii du dara nee ko man gisuma lii daf may jéem a may jéem a jaay taraanga nee ko man soxlawuma lii nee ko delloo leen taraanga ji laa delloo leen ko moo tax mu ne ko irji ilayhim delloo leen ko te ngeen wax ko ne na gaawantu def li ma wax balaa may ñëw di ko attaqué yàlla laa àndal de su ma ko attaqué de dinaa ko génne réewam moomu te bu dina torox daw leen <laughs> wax de moo tax mu ne ko irji ilayhim fala natiyannahum bi junudin laa qibala lahum biha wala nuxrijannahum minha azillatan wa hum saaxiruun nee ko na gaaw génn nee ko na gaaw daw si wuy si ma te ñëw jébbalu ànd ak man ñu jaamu ji yàlla lu ko mooy maa ngi ñëw de te billaay su may ñëw di dugg doole ji may àndal su deful ndànk doole ju kenn dul kar su ma ko attaqué danaa ko génne réewam de te danaa ko toroxal su boobaa dem leen gaaw ngeen wax ko li may wax mbokk yi Souleymane delloo na ndawal Balqiisa ya delloo na taraangay Balqiisa ya moo tax gis nga mbokk yi pour nga am liberté wax pour nga am liberté wax dangay ngay bañ a jël taraangay jàmbur da ngay fexe ba benn parti nga bañ a jël seen taraaga rek bu bëggee wax waaw ah, da ngay bañ ba far fenn bul far fenn non du ma wax sax bul jël taraanga mais dama ne d'accord ku la may jëlal mais bul far nit day fexe ba bañ a far rawatina ko am da nga war a wax tëdde njaaxaanaay waaye ngalla ku lay jox taraanga it wax ku lu leer ne ko yaa ngi may jox mais faralu ma de du ma du wax ngir far la de soo defee du dul loolu dama la koy wax de te damay taxaw ci pénc mi contre la mbokk yi na ñëpp dëggoo nii Souleymane ne ko kii bu fekkee dafa bëgg ma far ak moom delloo leen taraanga ji ne ko jëluma ne ko na def li ma wax allahu akbar na def li ma wax mais mënumaa jënd taraangaam ji delloo leen ko ko ne ko na def li ma wax balaa may ñëw ci kawam mbokk yi gaaya daw nanu ba ñu ñibbee nee nañ balxiisa kee nitu yàlla la kee ñu dem fekk soxlawul taraanga yi kii daa fees depp yàlla bal xiisa wutal solution bal xiisa ne leen man am naa solution xam naa nu may def mbokk yi gis nga nangu wolof da koy wax teel a nangu day yombali ne ma duma <laughs> teel nangu day yombali duma waaw mais am na koo xam ni du masa nangu moo tax xoolal ci ay jill rek lay dëkk ci ay jill rek mbokk yi ci misaal maanaam toog ne man Alaaji Idrissa Diop moo ma jàngal mooy sama kilifa waaw mais Modou loolu lan la wàññi ci man damay laaj lan la wàññi ci man damaa jàpp suma ma yokkul du wàññi mais du loolu mbokk yi sëriñ Lamine Guèye sama sëriñ la moo ma jàngal sama kilifa la docteur Bachir Ngom sama sëriñ la dafa may jàngal sama kilifa la waaw loolu léegi man lan la wàññi ci man mais muur am nañu dañoo dem bëree wax ni damaa jàng <laughs> moom dañoo bëgg a wax ni ñoom affaire bi maam daf leen a dikkal ñu munul nekk affaire munul dikkal kii affaire da ngay wax kan nga jaar kan moo la yar kan moo la tarbiya loolu dara newu ca mais am na ñoo xam ni ba nu génnee ci kër maanaam lañ gëj a tudd turu tëram kër ga du noonu nit du rëy teel a nangu day dimbali nit te yooyu yëpp nag ay rëy rek maanaam maanaam dañuy yor ci sunuy xol rëy te duñ ko yëg mbokk yi maa ngi ñaan ñun ñëpp lañ wàcc Balxiisa de la rendi Saba yi kilifa la de ponkal la mais bëggoon naa ni muy doxe jaami yàlla yi doxe noonu nañu ko déglu mbokk yi bi gaa yi delloo see taraanga ji wax ko ne ko kii nga jëf jëflanteel nitu yàlla la nan la doxale mbokk yi waxtu bi damaa dab na mu doxale maag yéen suba lay bu ñu dajawaatee ca la ñuy xam Balqisa nan la doxaleeg Suleymaan maa ngi teg baaraam gërëmaat ñëpp santaat ñëpp ndaa waxtu wi dal dab na ma ñaanal sunu label yal na yàlla yëkkati ko suñu directeur Alxaaji Maxtaar Silla yal na yàlla taxawu ay mbiram biir ak biti bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ku tedd kenn gënu ko ndax nit ku baax la yal na yàlla dimbali ko biir ak biti waaye dimbali personnel am bi yépp nag ci ànd ak moom bi ñu ànd ak moom di ko jàppale yal na yàlla taxawu e, ñaanal bu baax e, ki nga xam ni mooy la madame Silla yal na yàlla taxawu ko yal na yàlla dëgëral ko yal na yàlla jàppale ko bi jaahi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñaanal bu baax borom xam-xam yàlla na yàlla may leen ñuy wérelente te bañ di werante sunu mag sunu sëriñ alxaaji Idrissa Diop bu rahmatullah alayhi tafsir oustaz Oumar Diop ma nu ko mu yóbbaaleel ma ñëpp géew isa aradtum salamatal ardi fattabi'u muhammadan wa ariw hayatul umami mbokki assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa man adallu mimman yad'u min